asalaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 transfert la ñuy koy ak kii di Marc Royce moom nag kayiti xibaar dañoo biral ci ne mën na dem foofu la ca Manchester United ci kaw déggoo am diggante mag nga xam ne mooy Erik ten Hag ten Hag waxtaan diggante mag agent wu kii di Marc Royce moom xam nga bii daal bu jeexee bu dee prolongé wul ci diggante bi moom bu saison bi jeexee bu ko neexee day dem fu ko neex léegi nag ki nga xam ne mooy ten Hag soxla na ki nga xam ne mooy Royce foofu la ca Manchester United moom nañu ñoo ngi koy xayma ci jamono bi ci mille de livres par semaine loolu lay fayeku ak équipe am di Dortmund voilà Ten Hag mu ngi xool naka lay def ba dal di koy indi foofule maanaam ci li nga xam ne mooy été bi ñu dëkkmal gannaaw loolu dinañu wax ci ki nga xamante mooy Gonçalo Guedes bi nga xam ne déggoon ngeen ci ay fan ci ginnaaw ne Barcelone dañu ko bëgg a indi ngir mu daal di remplacer ki nga xamante ne mooy Memphis Depay dañu ko bëggoon ab waaye nag Wolverhampton dal dinañ koy abal Benfica kon SL foofu la ca Benfica ba saison euh, de ndax Chelsea ñu ngi indi ay renfort di indi ay renfort di renforcer seen équipe bi ci suuf ba ca kaw te am na ñoo xam ne faw dem voilà ni gars di dugg see moo lay wan ne dina ci am ñoo xam ne faw dinañu génn te kii di Kay Havertz séntu nañu ne dina bokk ci ñiy dem loolu war na ba ñii di waa Bayern Munich ñu ngi xool naka la def ba dal di signé ki nga xam ne mooy Kay Havertz moom nag kayit xibaar ñu ngi biral ne njëgam ñu ngi koy xayma ci li nga xamante mooy jàpp 60 millions d'euros voilà kon saison bii daal su jeexee jàpp nañu ne Kai Havertz mën na delluwaat foofu la ci Allemagne ga mu jógee woon ne fale ca Leverkusen nag la ko Chelsea daal di wu woon jamono bi ñuy gis ne daal daanaka moom da nekkul koo xam ne dafa important trop ci club bu bokkul ci joueurs yi nga xamante daal kenn du leen laal bu ñu amoon offre yu am solo day dem moo tax ñi di Bayern Boulaye Dia am na lu bari loo xam ne jot na ko nettali ci jamono bi muy nekk Villarreal ak la ko fa tax a jógee voilà ne Boulaye Dia ci boppam moo sàkku sax ngir mu dal di ko fay génne yóbbu ko foo xam ne dina mu yóbbu ko ne moo Salernitana ne jamono bi moo fay def jaloor yu am solo ndax marqué góom na lu ci juróom-ñaari bal bi saison bi dooreek léegi léegi nag mu ngi xam ne ne maanaam Salernitana googu du équipe boo xam ne xëy na Boulaye Dia fa la war a continuer di euh, ni euh, euh, boobu comme ni mu ko amee woon bu njëkk balaa muy dégg ñàkk place ak ñi di Villarreal voilà kon dafa dem foofu loolu ngir war a mën a xeex liggéey bu baax baax ba gën a nekk ci top forme su ko defee ñu xool ana lan mooy xew ëllëg kon jamono bi mën nañu gis ne ci yeneen club yu gën a mag moom sax la dal di li mu bëgg mooy Boulaye dem ci équipe boo xamante dafay am ay joueurs yu mag muy joué ak ñoom ndax su boobaa dina am euh, xarañteef voilà dina Boulaye yokkute bi nga xam ne indil na leen ko donte ne équipe la boo xam ne bokkul ak Napoli ak nga xam ne ñu a mag dina wane ubbeeku ngir dem ci yeneen club yooyu le loolu mooy li nga xam ne daal dina koy gaaral gannaaw loolu ki nga xamante nag mooy Henri Saivet Henri Saivet ak ki nga xamante ne mooy Eliman Franck Kanouté xam nga ñoom ñaar ñëpp ñoo ngi ca Ligue 2 française ndax kat jamono bi saison bi xaaj na dañ leen bokk boole nag ci joueurs nga xamante ne nañu leen ci li nga xamante ni mooy équipe type de la équipe type bi maanaam euh, saison bi bu dawee ba xaaj dañuy xool joueurs yi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci li nga xamante ni mooy première partie saison bi su ko defee ñu dal leen tànn léegi nag équipe type boobu la nag ki nga xamante ne mooy Elimane Franck Kanouté bi nga xam ne moo doon def longue passe yi yéen a ngi koy fàttaleku woon nañ ko fii ak équipe nationale bu Sénégal ja nekk foofu la ca cercle de Bruges ko nga xam ne am na lu bari lu ko yaaxal ren nag ñu gis ne foofu la ca Sochaux voilà di fa wane jaloor yu am ne moom itam diggante yëpp daanaka jewul won ren ji daanaka man nañ wax na ci yëkëti yëkkatiwaat li nga xamanteni moy mooy nga maam tankam di wanewaat lu leer momit bokku na ci ñi nga xamne tan nañu len ta wara a ci ñom li nga équipe tip moy ñom ñaar ñi le kon loolu fay rek jamono bi ñu ngi def saison bu baax fofu la ci Ligue 2 ba Henri CV mu ngi Pau FC Eliman Frankanote nekk ca dégg nga maam soso buñ joggé ci loolu dinañ wax ci li nga xamanteni moy tirage au sort bi nga xamne doon nañu ko amal waxon nañ len dañ ci delu ci moy coupe de roi bi xam ngeen ne dembalé doon joué li nga xamanteni moy 8 de finale ko jéxal légui nak Real Madrid ak Atlético de Madrid ñoo wara dajé fofu man nañu wax derby moo xew foofu le voilà Real ak seen dëkkandoo yi ñaari club yi gën a mag foofu la ca Madrid ñooy daje loolu nag mu ngi war a xew ci talaata bi voilà maanaam match yi ci talaata ji lay tàmbali entre 24 25 septembre euh, janvier ci lañu koy voilà kon Real Madrid Atlético de Madrid lay doon Osasuna FC Sevilla lay doon Valence Athletic Club Bilbao lay dajal Barça Real Sociedad foofu itam beneen choc la ndax bu ngeen fàttale ko nag Real Sociedad igel la boo xam ne at yi nag la gis sax Barça di ko ale aller ak retour waaye Barça amoon na fi lu toll ci fukki attaque nangam yoo xam fépp fu mu demee foofu la ca Sociedad dafay jël defet waaye gis nañu ne nag at yi moom mën nañu wax ne daanaka loolu dafa daal di changé complètement waaye ñu séntu ne daal match la boo xam ne dina interesting trop voilà Barcelone Real Sociedad Valence Athletic Club Bilbao Osasuna Séville Real Madrid Atlético de Madrid loolu mooy quart de finale li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy coupe de roi foofu la ca Espagne